noonu abonné daal diisul doo fay dara rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na recette bi yaay ci ko yor kaay leen ñu dem abonné konoon réew mi biir civil bi xeex nañ ñu koy gërëm ci loolu da ko ñaanal yàlla ndimbal yàlla yàlla dimbale ko waaye ñu koy ñaan comme ñun ay ndonga daara lañu mbay lañ xam ak jàng ak jaamu yàlla duñ toj gaar duñ toj dara duñ saaga kenn duñ sànni xeer kenn daal liñ bëgg daal mu dimbale ñu ci engrais te engrais bi baax li ma bëgg mooy mu dimbale ñu ci engrais te engrais bi baax dëgg-dëgg engrais bu baaxul rek mbay mi li cee yàq ay milliards lay doon mais ñu dimbali ci loolu dana yàlla dimbali ko ba nga xam ne ñun dégg loolu dañ seet seen diggante seen borom dañu jox liñ ñu war a jox jaay ñu ko prix bi ñu ko war a jaay waaye saa ko engrais ñetti junne ak nangam nga wicc ko joxu la benn résultat dëgg-dëgg loolu métti na su fekkee ñaaw na dëgg la su fekkee rafet na dëgg la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh